mbokk yi suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar gis ngeen li sama ginnaaw Talla Ndiaye nañ fi Bawol wala boog ca géej ga fekk fa tafaatin ak ay rakku mbërëm ak ñoom Bada Dione la ñu commencé woon foofa nag moom la ñu andi fii tey stade Iba Mar Diop ngir lan 100 pour 100 la ñu wax écrés Bawol yëpp a ngi daje gis nga xale yu jigéen ñi jonga may Talla Ndiaye jëlal waa Réfane waa Ndereb waa Ngunjaan waa Touba waa réew ma waa ndondol ñëpp a ngi fi kenn manquéwul maam Diarra bëgg naa la. cher naa la Babacar. en tant que jigéen 100 pour 100 bawol bi lan moo ko waral ci lu gàtt. 100 pour 100 bawol bi comme dañuy def 100 pour 100 euh, Pikine 100 pour 100 parcelle ñun tamit ñu ne nañ def 100 pour 100 bawol waaw waaw. Siga 100 pour 100 bi yéen ban rôle ngeen ci war a am jigéen ñun xanaa boole rek ndax yàgg nañ ko saytu pour ñu jël mbëru bawol yi yëpp ñu ànd doon benn ndax ñun supporter ji de benn lañ ñu nekk 100 pour cent booy bawol ñoo nekk 100 pour cent tafaatin même chose que njaaytin même chose que ngal jon kon tey bada jon su jëlee regroupé mbëru bawol yi rek ñu doon benn kon ñun supporter yi yëpp dañuy ñaan ñu doon benn waaw may remercier ñëpp nag man maa représenté fans club Tapha Tine yow foo jógee yow euh, man Ngoundiane lay jógee Roqay laa tudd Roqay Sène Roqay Sène mhm. euh, xanaa lu rafet rek euh, parce que tamit euh, regrouper ay jeunes daal dafa neex daal nekk benn xeeti yëpp nekk benn daal. waaw jàng naa école. ban ban ngay def. naa pour l'instant bàyyi na. <laughs> dara. yow foo jógee yow. eh wuyuñ. fan wala fan wala ndarab. Ngunjaan. Ngunjaan. waaw. yow foo jógee yow. man Ngoundiane laa jógee ba tey. waaw Ngoundiane moom xew yow foo jógee. man darab laa jógee. waaw. waaw Babacar lii rafet na macha allah wax dëgg yàlla dañ cee am kontaan ak fierté rek ndax euh, lu lu mënul ñàkk faaw day am kon buñ ñu boole rek dañuy sant yàlla bu baax a baax di kontaane ñëpp di gërëm ñëpp. ma réew maa wala jógee ah, am si contentement bu baax a baax parce dafa neex boole doomi Bawol nii am si mbégte daal. Mhm. man gu Njaay laa jógee mais leen rek laa bëggoon a parce que Badajo ni mu def dafa rafet trop mbooloo dafa baax nañ ci jàpp bu baax nag incha allah merci kontaan. comme liñ la ko waxee rek xale yu jigéen yi Badajo la ñu wax Cheikh Anta ngi taxaw Ndiak ngi taxaw Cheikh Anta yow yaay président écurie Bawol ci lu gat lii lan moo tax ngeen xalaat ko ba def ko. lii dañu ko xalaat def ko ngir jàppale képp ku nekk bawol bawol muy sport bi di social di culture lépp waaw loolu lañ ko defee ko moo tax ko Ndiak yow defe naa entraîneur nga tamit ceekri jaan loo ci dolli. waaw comme ni ko see rek social rek lañ ci jublu ah. parce que dañoo gis ne ñun ñooy lambu ñoo moom lambu mais gars yi dañu dem di bàyyi suñ gars yi. léegi moo tax ñu xalaat lii ba dajoonu xalaat ko wooñu ñu gunge ko ñun ñaay rakam pour bëgg rek booy avancé moo tax ñu xalaat lii John mu mel ne li nga xalaat daa mel ni ñëpp nañ ci ak yow de bool bool parce que maanaam nee nañu maanaam ñi bokk baag ñooy rootandoo parce que lii boo ko xoolee xam ne ñi ñëpp wax dëgg ñi fi nekk ñëpp xam naa leen ku na jéeg moon na maa tudd sa tur xam naa sa ndey sa baay ci ñi fi nekk yëpp ah mu doon loo xamante nit ñun dañoo nekk ci làmb di ci fonctionner di liggéey écrit yi yàggul ay yeneen écrit la ñu fekk mu mag ñu dikk boo marqué suñu en plein ah vraiment bu ñu toogee ba tey nekk mag war na noo gëm ne war na noo mën a jëlee booy yi fi ñu nekk nii yóbbu leen feneen ñu jéem a rassembler rek pour dajale Bawol pour que social xam nga tey maanaam day daal lii daal saa Kajoor ak lii daal booy Bambara. jombul kenn mën na maa dal mën na laa dal mën naa dal keneen mbir nag bu amee nekk ngeen doon ay nit bu amee dangeen ngeen cee war a jël repère pour préparer pour ëllëg pour képp ku ñu gis mu nekk bawol mu nekk mbër mu nekk bawol bawol mu nekk sénégalais boo xamante ni xëj na am na jafe-jafe yaram wala leneen ah, ñu xool bu dee dërëm la ñu dem yóbbu ko fa ñu xam ne bawol la frontière moo def lii te boo xoolee bawol bawol yëpp dugal nañu ci seen loxo den ay am noo xam ne nag faw ñu cité leen gërëm leen muy première Mor Ngom mooy coordinateur département Bambey di ci tegit Djib Diaw sunu maire maire Réfane ak maître Pape nekk sama xarit sama doomu ndey Mbaye Dione nekk maire Koundiane nekk sunu xarit nekk sunu soppe nekk sunu lépp ay daaw da Diouf ak maire bawol yëpp daal ak kilifa yi vraiment ñu di leen gërëm di leen sant xam ne ñoo ñu jàppale ba lii mën a am te lii ñëpp a ko rafetlu bu dul kon dara yeeg maanaam xam nañ ne bawol bawol yi moom li xew feneen xewu fa ay xuloo ay xeex ay tamante yooyu yëpp ñun amul ci parce que nee naa ne mën xuloo waaye mën nanoo xasante parce que ñëpp ay mbokk lañu waa loolu daal moo ñu appuyé ci loolu. jee caala kalenga ya fanon biyaga ne ani nyumba mino sere to nyumba nyumba Hey, hey, hey, mosul daal loo yokku ci li am ni tey xam nga bawol dafa yaatu am cër ci lamb ji raison pour laquelle ñu boole doole yi mbër ak seeni supporters ñu booloo ba kenn ku boo amee bés ñëpp ñëw jàppale la tey jii boo xoolee nu mu demee ménage bu tafaatin toog mbay cuun ma nga ngel jot kon dafa war ci ñun te dafa jot bawol dafa doon ah contre tous presque ñëpp dañoo bëgg a bëre Bawol tey jii Babacar ku bërewul ak Bawol da nga yaakaar ne bërewoo ñëw gën a avancé ci kanam lii mooy Bawol sans frontière moo tax amuñu frontière. maa ngi lay fay waay. yow itam ngay menacer a Tine lii en tant que kilifa loo ciy dolli. non lii daal kontaan ci te bañ ko dalee def yàgg na lu dara lu ñu sant ba dee jonn di ko gërëm ndax lii lépp ginnaaw yàlla ak moom la moo financé moo def lépp fexe ba àndandoo ikir yëpp nekk benn heure bu ñu am mbër yi amee combat supporters ak amateurs yi yëpp ñu mobiliser ñëw si ikir yi jàppale mbër yi loolu moo tax Bada def lii ñi ko sant nag di ko gërëm amuñu payam waaw jërëm Bawol production 100 pour 100 Bawol yaakaar naa loolu yow moom daa gars yi dañ cee fekk yaakaar naa de. waaw non dañ ma ci fekk ji ak def ci la quoi mais kontaan naa ci trop donc yàlla leen yàlla taxawu jàppale leen suude leen ba lii ñu mébét mu dem ca kaw champion yi ci nekk di bëre yàlla taxawu leen promoteurs yi nekk ci dëkk bi yëpp yàlla taxawu leen lii daal xalaat bu rafet la luy dimbale promoteur la aussi am nañ ci mbégte daal jaajëf. taala kii mooy entraîneur Tapha Tine kii mooy Mbaye Ndewane taala kii mooy Baye Bada Sum kii moo yor école de lutte Cheikh mooy Fallou Ngom bu ñoom kéwél ak ñoom wulli noonu la demee kële mooy Eli Sukay demal taala demal Eli Sukay kii moo yor école de lutte Bada Dione entraîneur Bawal yaa nga ngu toog taala kaay taala Ndiaye jéeye ngi nii 100 wax moom bawal la dëkk diggante Kuluk ak moom. Babacar fay naa la bu baax. ngay promoteur mu mel ne bu ñu nee 100 pour 100 bawal tamit da nga amal promoteur yi njariñ ndax supporters yi lañ bëgg a regroupé ñu soutenir mbëru bawal yëpp ah. mais loolu boo ko waxee day mel ni bawal bu amal woon promoteur yi njariñ te bawal bu njëkk ak léegi lépp ci yam dafa amal dafa amal promoteur yi njariñ ndax kuy tëggu lamb ku ne bëgg nga tëgg mbëru bawal lamb boo fi gis buñ ci tëggul mbëru bawal du neex. kon am na solo trop Babacar li nga may wax sax yaa ma gën a xam parce que bu naan 100 pour 100 Bawol yaa ko fondé ñu defar ana waa Géejawaay. ñëpp a nga fa. ana soxna yi. ngi ci jàmm. bàyyi laat sa waa xanaa tey daa dara. yaram bi daa tàng. yaag moom yéen bokk seen digg Bawol yàlla mi dara tawul dogal euh, ngeen tooñante ci biir Bawol ak cant la lii xew-xew mu am lu muy yëg ci yaramam. waaye di la ziar ndax lii lépp sant yàlla ndax sëñ bamba mi nu yaakaar dafa jël suufu si teg ko ci diggante Bawol ak Jolof kon Bawol Bawol kenn du ko bañ a doon ka dëkk Kajoor ak ka dëkk Njàmbur ndax bu sëñ bamba dafa ñëw biir Bawol def leen ay dëkkandoo teg diggante Bawol ci digg di euh, jël Touba teg ko ci diggante Jolof ak Bawol kon loolu ak sant yàlla la waaye nag di la nuyu waaye di félicité waa Bawol di nuyu Talla innovation bu rafet la na ko gox yëpp jël àndandoo nekk benn doole bu ñëpp àndee doon benn force day am te tey force Bawol ku ne yàgg ne koo dégg waaye yaakaar naa ni cette fois-ci képp kuy xale bokk ci Bawol li ma romb ci ay mbër bu ñu mobiliser waxuma la nangu làmb mais dañu am part cër bu rëy ci biir làmb kon di féliciter na Dione ñoom Cheikh Anta ñi ñu àndal di leen wax ne du courage nañ leen jàppale jiitu nag yombul boo jiitoo lu ne di ko daj waaye nañu xam ne Bawol rek leen ñor yàlla na yàlla def sutura ñun daal bég nañu sunu xol sedd na ñu ñëw fi doon invité ci bés bi toog fi cër la ci ñun ñu ngi sant bu baax a baax a baax waaye di nuyu aussi mon na et frère sa xarit yaa ngi moom la woon. ñoo bokkoon garage ñoo métier ga. yéen sànni course métier bokkaat Bawol duma sama yoon newu ci. ñoo bokkoon garage. bi. waaw Ndiame seen la. Ndiame waaw rakk ci maître Pape Sène. doom ci Jéej seen production. waaw. tey lu waral teewaay bi fii. waaw xanaa di wax ne bawal moo aye tey rek. te bawal bawal comme mu nekk bawal bawal loolu tax sama présence moo ñëw tey waaw maa ngi fi ñëw aussi ci turu Ndondol. ci turu maître Pape Sène maire de la commune de Ndondol. waaw looloo waral sama teewaay fi aussi. waaw 100 pour cent bi noo ko gisee. waaw 100 pour cent moom vraiment am na solo trop. di wax ne nañ ko continuer te mu am suite daal parce que am na solo trop trop parce que mbooloo mooy doole waaw puis lii buñ ko yàggoon def ba nii Bawar romb na fi bu yàgg yàgg waaw am na solo trop waaw kontaan nañ trop jërëjëf merci beaucoup ok on est ensemble. kii mooy Khadim Samb RTS wala sax bu Bawol laay wax wala bu Sénégal yaakaar naa tey buñ ne 100 pour 100 Bawol nga ñëw toog li nga mën a wax ci Bawol bëriwul ñu ko mën a wax ci Bawol man loo may wax ci Bawol laa lay njëkk a laaj ginnaaw ma lu nuyoo. waaw euh, sant yàlla bu baax. julli corent bi sant sunu ñaari waajur sant Serigne Touba Khadim Rassoul di am mbégte mu rëy tey ci bés bi nga xam ni mooy Sénégal ndax Bawol mooy Sénégal euh, ñu dajale tey écurie yi nekk Bawol yëpp boole ñu nekk benn Tapha Tine nekk ca bopp euh, loolu. nekk loo xam ne lii tey mën nañ wax ni fii ak 50 ans histoire dina ko bind ñuy ndokkeel Bada Jonn ak Daawuda waaye nag di jël ndokkeel bi ak nuyoo bépp di ko teg ci kilifa ak jataay bi muy sunu maire di Djibi Thiaw di maire Réfane nga xam ni Djibi Thiaw ak Bada Dione ak Daouda Sarr dañoo yàgg lite ci Bawol nekk benn Bawol nag réew mu mag la ndax xam nga ne Déthié Fo Ndiogou mi nga xam ne moo njëkk a nekk la man ci Bawol dafa ñëw dëkk bu ñuy wax tënk ci Bawol jël fa sobal waale am ci Amari Ngoone Sobel mi xeex 1549 réew yëpp jot seen bopp rey la li fuli fàkk la bataille di Danki Bawol amoon teeñ maa faan caw maami Jibi Caw mii Bawol amoon tee amoon teeñu am teeñ famille Langaar Ngom am kër Jimik am kër Maayu Ngor am kër Aldaw am supporter ñoxo ndax maa ngi wax ci benn conférence ne bu Sénégal raafoon Bawol du raaf ndax Bawol la fa yàlla def defu ko ci benn réew fanweer deme la ñett ñoo falu Kajoor ñoom ñëpp seen ndey Faal la seen ndey Jeng la sant seen baay sant Faal jóge Bawol ndax kër ca la ndax Thienthia Ndella Ndiaye na kër ci Yacine di moom Lambaye kër ca di moom Kajoor tey nag li Bawol def sama maam daf daa wax ni kooy Bawol bu ñu àndee ak seen i baay mënoo leen a seen bopp kon su Bawol àndee tey Djibi Thiaw di meeru Réfane ñëw tey toog di kilifa jotaay bi sunu xol sedd na te man nag bu fekkee Bawol Bawol 100 pour cent am na man la. man Bawol fala sama baay dëkk fala sama ndey dëkk moo tax ndaje mii yàlla dogal ma bokk ci ñi ko xelaat ndax sunu bëgg-bëgg pour roi des dugg Bawol foog Bawol booloo te su Bawol booloo roi des arènes dana ñu Bawol ba ndeeg dogal yàlla incha allah jërëjëf. ñoo ziar waaw di leen sant di leen gërëm di am mbégte mu rëy ci bés bii. Bawol sans frontière boole na tey képp kuy doomu Bawol boo gisee jeetaay bi ni mu toogee nga xam ne tey képp kuy doomu Bawol mu ngi fi ma am na fierté lool toog fi man naa ne toogal fi tamit képp kuy maire te dëkk Bawol ñoom ñëpp maire Bawol yëpp tey jàpp nañ ne ñu ngi fi toog ci ci jeetaay bi euh, yónnee nañu ñoom ñëpp kenn ku nekk ndaw lii muy initiative bu rafet Euh, muy dundalaat cosaan waaye aussi gën a boole ñun waa Bawol ñi nga xam ne yàlla dafa dogal suñuy tool nekk fii ci Ndakaaru muy loo xam ne ñoom Bada Jonn Ndour ñi ko organiser ñoom Cheikh ak waa Bawol sans frontières yëpp ñu leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci delloo njukkal mais aussi di ci sant di ci gërëm ku mel ni Xaadim Samb euh, muy koo xam ne saa boo tuddee Bawol mu jóg <laughs> Tapha Ngongu Talla eh way Tapha ngi noonu Tapha Ngongu Talla ndeysaan Tapha Ngongu yéeg Talla Ndiaye mu mel ni nag Bawol actuellement sa amee leader ci wàllum làmb du kenn ku dul tafaatin Talla Ndiaye waaw loolu la yàlla dogal mu ngi nuyu gaa yi mu ngi nuyoo gaa yaa ngi koy tàccu la grand champion tafaatin waa ndeysaan mu ngi noonu ngay séen muy nuyoo ba rek Tafa ngoo nguy nuyoo

xool ni ko mbooloo mi toppee. yéen autorité locales yi lii dafa mel ni est-ce que du yéen lañ koy defal. voilà merci sëñ bi maa ngi lay gërëm bu baax a baax euh, di la naan lii wax dëgg yàlla dafa mel ni autorité locales yi lañ koy defal ndax lii ñoom ñoo ko waroon njëkk a oote kon bu ñu demee ba ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu sport dëkk si tundu bawol yëpp oote ko mënuñ def lu dul sa. gërëm leen sant leen te di leen encouragé bu baax a baax a baax a baax. kon lii daal yokkute lay doon ci Bawol waaye yokkute lay doon tamit ci collectivité locale yi nekk ci Bawol yëpp. waaw lii moom mënul nekk leen lu dul yokkute ndax dañ na mbooloo mooy doole kon bu ñu demee ba xam ne mbooloo mooy doole tax ñu lëkkalee écurie Bawol yi yëpp. loolu day wone rekk ni ñun waa Bawol yëpp ñoo war a tàllalante loxo joxante loxo boole suñu doole boole suñu mën-mën a ah, su ko defee rek ñu am doole ndax nee nañ moom <laughs> bu ngeen booloo rekk doole bi yokk wante bu ngeen xajaloo rek doole bi day néew kon Bawol ca kaw ca kanam. daa bëgg a fecc mais mayuñu ko fu mu feccee. ndeysaan. gars may leen ko mu fecc Babacar maa ngi lay maa lay siyaar waaw. ma am nga jàmm. sant yàlla bu baax. tey dañ ne 100 pour 100 Bawol ñu fekkoon leen géej ngeen commencé ko fa tey ngeen ñëw fii ci stadium Iba Mar Diop woo fi ay artistes ak ñëpp maire yeeg ñëpp teew loolu yow en tant que leader bi nga xam ne tey ci wàllum lamb yaa nekk Bawol loolu ban yëg-yëg nga si am. waaw di sant yàlla rek xam nga lii moom dafa neex waa xam nga maanaam invitation bu ñu la mën defal mën naa ne xëj na lii moo ko dàq xam nga. ñoo ànd ak say mbokk ci lu ne moom dafa gën a wóor ci lu ne boo tax sama xel daal na sama xool seet na ci aussi gars yëpp a ngi promoteur yaa ngi toog maire yaa ngi toog xam nga du ma fi nekk di lim mbër yeeg ñëpp a fi jàmm ak salaam maa ngi sama xarit Pape Aline ak ñoom Cheikh Mbacke Siga affaire yooyu ñoom Ousseynou sama financier mu ngi toog maanaam sama biiru mbokk laa nekk kon tey du ma fi nekk di lim turu kii wala maire yaa ngi toog promoteur yi Bawol yaa ngi toog. autorité Bawol yi ñu ngi toog Babacar yaa ngi nii dëkk Bawol di introsé gars yi tafaatin leader Bawol mu ngi nii sama frère yi ñu ngi ñëw ci kanam man maa leen di dalal ak entraîneur yeeg yëpp di wax ne neex na daal vraiment yes. kon daal gars yi dama yaakaar ne bu buñ la poussé wala boog ñoom parce que li ma dégg ci ñoom mooy dañu bëgg roi des arènes dem Bawol buñ buñ nekkee sa kanam sa ginnaaw kon dem Bawol de. Baye Fall waaw waaw waaw non loolu kenn waxu ko loolu moom la ñuy ñaan yàlla instant yi ci loolu lañ di liggéey tafaatin mu ngi ci comme ni ñu ko waxee defal mu def bàyyal mu bàyyi instant yi ci phase boobu lañu toll. yeah bu loolu weesoo nag dinaa ci sant ñaar muy Bada Dione comprendre ak Xaadim Sam mi nga xam ne moo tax lii am tey Refane la idée bi jóge yàggul dara ci gàmmu Refane bi Xaadim Sam toog suma ker ak Bada Dione idée bi foofu la jóge kon mën naa ne sant yàlla la quoi te eh, yaakaar naa bu ñu ko organisé mën nañ koo yóbbu arène nationale incha jaajëf Babacar. yow naa yàq ya ñëw ba def fa yax ya jooba xaja jooga yax ya jooba xaja jooga décoration bi Djibi Thiaw moo koy jox Fallou kii mooy entraîneur écurie Bawol bu ñoom wulli ak ñoom këwe som Fallou Bawol sans frontière Bawol sans frontière diplôme baa ngi noonu diplôme de reconnaissance Talla Bawol sans frontière la wax nga teew tey loo yëg waaw Babacar euh, vraiment ñu ñu ñu ñu nekk sam ginnaaw keroog boo gisee bi may bëral fii ba def jon ci boppam moo toog sama chaise bi kon tey ñoom bu ñu xewlee loolu ma jàpp dama koy bay ma ñoom bawol sans sans frontière ñoo ne sama ginnaaw ne waxuma daan sama chaise Cheikh Diouf mooy sama grand frère ñu mag ban baay booy bii cànnaa mooy sama président ba këram waaye neexu liiru jaan moom na xam ne waa Bawol yëpp añ sama ginnaaw bu soobee bu bés ba ñoo fees waa Bawol ñëpp di gërëm jaanaaru ñoom ñëpp di xamal di jox rendez-vous Réfane su su su la bu ma gay am Réfane waaw dama jox waa Réfane ñëpp waa li neexul

Yeah, yeah. fédérer seen i force pour boole seen doole parce que aussi sport rassembler la euh, mais du pour diviser comme dañuy rassembler nag euh, ñun daal ñu ngi leen di ñaan ñu continuer ci dynamique bi parce que dynamique bi ci lañ mën a amee dara euh, di sant aussi ñi nga xamante ne ñoo jël initiative bi pour fédérer force yi nga xamante ne ni mooy écrit Bawol yëpp muy Bada Dione et compagnie Bada Sung Mbay Ñing ak ñoom Tafatine ak écrit yi nekk Bawol yëpp daal waaw mu mel ne Aïda Mbodj nga fi teewal. non man teewal ma fi ay Mbodj man Refane laa fi teewal man bokkuma ci benn parti. benn affinité ba nga xamante ne nii ak diggante ak ñi nga xamante ni mooy monde sport bi parce que ñun ci sunu politique aussi dañ leen di wax di accompagner maanaam ci ay en matière d' infrastructure. parce que comme ni ñu koy waxee ñun dañu am benn programme ba nga xamante ne nii ah, ki ay politique publique local nga xam ne mbër yi bu ñu ñëwatee jógeetee Dakar ñëw Refane. dañ leen di utal ay infrastructure ya nga xam ne dañ koy équiper nga xam ne dañuy mën di sport parce que saa bu ñu jógee Dakar ñëw Refane dootuñu entraîner ti loolu mi ngi ci sama programme man Mahmadan Sung pour euh, ay points yu am solo yu concerné sport bi utal leen ay salle équipé ko euh, ñu fay sporté terrain municipal ba aussi ñu équipé ko def fa ay ay ay projecteur nga xam ne ku fay organiser ti dara rek comme yéen ñi da ngeen di mën a ñëw def seen liggéey normalement voilà. donc la Babacar ginnaaw bi ma la nuyoo di julli ci yàlla di julli sangu-sang yi ah, lii dafa rafet parce que lii dañ koy yéex a def mën naa ne xëy na man maa ngi ci doon dox ay jéego yu bëree bari mais am na ñu ko yëg am na ñu ko yëgul ku mel ni Tapha Tine mosul am combat ne ku màcc kaayam. bu ma juumul depuis bu muy bëree ak Yékini Junior bu njëkk ba ba jusqu'à présent combat bu mu am maa ngi nekk ci ay cummikaayam am na ñu ko xam bawal nag am na ñu ko xamul foog naa ci ay jéego yu réeréy kon bu li amee dama ciy kontaan trop di leen wax na lii daal nañ ko dooleel bu baax a baax parce que am na ñoo xamante ni ñu ngi def naan euh, dañuy def seen euh, coalition ñoom 100 pour cent te du ñu ay mbokk mais ñun dañoo nekk ay mbokk. nekk ay mag ak ay rak kon lii dafa nekk loo xamante ni lu war a mën a nekk la lu war a mën nekk la man nag seen mag laa ñoom ñëpp dinaa ci gën a jàpp nu ma ci mën jàppee dama ci gën a jàpp dooleel ko bu baax a baax a baax.